jërë ngeen jëf taax mi daanu démb ca Tëngéej moom la yéenekaay yu bari ñu xëyandool xëy yëkkate ci seen xëtu njëkk bokk ci ñoom l'observateur mi ko tuddee musiba mbabakumba ubbil yéenekaay bi ci cité si presque ci commune bu Rufisque Ouest ca boor sorti na bu autoroute APS bi fa la jëye ji xewe ba juróomi nit ñàkk ci seen bakkan muy benn waaye bu ñu naan Duudu Ñokke di keneen ku ñu naan Alioune Sow tolloon ci ñaar fukkeet ak benn lañu faatu am na it ñu bari ñu ca jëlee gaañu gaañu soleil national di ñu ko dëggalal ci xëtamu njëkk li bind mooy am na ab immeuble bu màbbu ca Cyprès ak mbaaw ba juróomi doomi aadama ñàkk ci seen bakkan le quotidien gis ci ay ruine ak i larme maanaam bâtiment bu nërmeelu ba jur bakkan yu tëdd jurit ay ronkañ yu bari juróomi nit ñoo ca faatu yeneen juróom-ñetti nit jële ci ay gaañu gaañu bâtiment boobee daanu démb ci Rufisque ña ca loru tir bi yoo xam ne dañoo coincé ci biir yu ñuul kukk la ñu dund démb ci réew mi ndax bu weesoo juróomi nit yooyee ñàkk seen bakkan ci bâtiment bi daanu démb ci Tëngéej am na yeneen ñaari nit yu faatu démb it ci àllarba ji ci accident ci Sédhiou ne benn camion bu ndaw moo fa mbëkkante ak benn moto bu yeboon ñaari nit ba ñaar ñi faatu fi saasi saasi yi tembe le mi ngi ñuy xibaar ne am na ay nit yu ñu jàpp ca Touba li ñu leen di tuumaal mooy ñoo demoon daggate ji tiwo yu ONAS di office national assainissement def ci ba ngir mën a évacuer ndoxum taw mi ñooñee ñu teg loxo Soleil national mi ngi ñuy wax nañu ay jigéen lañu tollu nañu ci ñetti jigéen gendarme yu section recherche jàpp li leen rey ba ñu dee mooy caméra surveillance yu fa newoon moo leen feeñal ca la gendarme yi sukkandiku ba teg leen loxo ñi ñu tegoon loxo ca sali Portugal ga ci Mbour ci trafiqué ay faux billets muy ñaari agent yu GIGN ak benn civil buñ ci àndaloon l'observateur nee nañu mandat dépôt nañu leen ñoo ngo ca kaso bu Mbour toog fa di xaar seenub àtte libération xëy ñu baaxee ay révélation ci mbir mi ndekkete seen complice bi la gendarme yu brigade de recherche ko jàppee ci buntu hôtel teeru sali moom waa ji moo yi ba ci fa ñuy defaree faux billets ñu yeggee fa la ñu fekk ñaari agent seen ay faux billets mu di ay faux billets yu tolloon ci ñaari milliards fekk nañu ci ñoom it seen i arme de service ak xaalis bu baax bu tolloon ci 3 millions 700 mille l'info yéene li mu taxaw seetlu ci loi bi ñu fi teg te mu jëmoon ci wàññi bi li mu gis moom journal bi nee nañu wax ji gudd gàtt mooy loi ba dafa lajj yéene kay bi boole ko ki témoignage yu mu nangoo ci ay doomi Sénégal yuy dund ci luyaas muy Abdoulaye Diouf ab ingénieur la Sidi Sow ab tailleur la ak seen nas suñu naan xadi di liggéey ci LONASE ñoom ñëpp ñoo ngi nit li ñu dund ak seeni bailleur ci njëgu wàññi ak yaakaar ju tas ji ñu amee ci loi bi wàññi njëgu luyaas bi Mamadou Mbaye di président bu FASIS ne ñu ci journal bi décret bi dafa yàqal bu baax a baax agence immobilière yi ndax commission bi ñu wàññi ñoom ca la ñu daan dund dund Ousmane Sonko mi ngi gën di doy waar ndax wér-gu-yaramam gu gàll góose kenn ci avocat moom Ousmane Sonko di maître Ciré Clédor Ly moo ko xam ne ci xët mu njëkku libération maître Ciré Clédor Ly nee na état de santé bu Ousmane Sonko dafa gën a am kenn ko autorisé nañ la ngir nga mën koo gis waaye yeew yi demoon dimb ci hôpital Ousmane Sonko ngir yeggee ko li ñu jëlee ci Serigne Mountakha ba ñu gis ko ñun moom Ousmane Sonko ci xët mu njëkk source wa koy wan ne bokkatul ci liste électorale yi mu di notification portant radiation sur le fichier électoral source wa ñuy wax ne ba léegi Ousmane Sonko jotagu ko commissaire police bu jëppal bi ñu ko joxoon ngir mu jox ko ko di commissaire El Hadji Ali Sow mënul woon fekk Ousmane Sonko këram ndax ma nga woon ca kaso ba ci la préfet bu Ndakaaru jëlee këyit wi jox ko ki jiite prison bu Sébikotane ngir bés bu Ousmane Sonko jóge pavillon spécial mu jox ko ko moom Ousmane Sonko source am mi ngi ñuy it ne def na démb ci alxames yi ñaar fukki fan yi grève de faim ak juróom-benn vingt-six jours grève de faim tàndarma yi ñu ne moom la ko sëriñ Muntaxa yóbbante ba démbit source ne nañu duggul woon ci gémmiñam